Sport TV de Baba Show l' actualité on continue actualité ñu fas yéene waxtaanee gars yi nga xam ne nag mooy donc réserve bi nga xam ne Sénégal porté na ko France lan moo ci nekk fan lañ ci toll ndax dina aboutir ak du aboutir dañ leen ci jox détail ak aussi accord bi nga xam ne aussi FIFA am na ko ak waa France loolu yëpp ñu fas yéene ko wasaare laata boobu également gars ah, image bi kan moom mën a wax ñaan yi fan la ñu bokkee woon équipe man image moo gisee sama yaram day daw quoi parce que pour man naa ne jamono ji Karambooj bu du blessure ak aussi yenn circonstances yi nga xamné également bëgguma ci dellu ci donc il mom ak ki nga donc mooy donc Koulibaly mën nañ former défense bu graw ci Sénégal ah donc également ki nga xamné moy donc Ahmed Moussa nee ki nga xamné moy donc Obi Mikel bokk na ci ko xamné dañ ko wara bolé ak jeune yi nekk actuellement ci Nigeria pour expérience ni parce que ci am solo te gis nañ ne jamono ji daal Nigeria am équipe mais expérience moo ko manqué loolu Ahmed Moussa ancien international nigérien moko ko daal di euh, fësal ki nga xamné également William Saliba actuellement nak ñi di wa Paris Saint-Germain ak wa Real Madrid ñoom ñooy demander information ci mom mais nak est-ce que dina dem Paris Saint-Germain notamment que ne jaar na Marseille et tout on ne sait pas en tout cas dal Marseille ak euh, plutôt Paris Saint-Germain ak Real Madrid ñoo ci nekk ki nga xam ne également nak moy suñu gay day Iliman éliminé éliminé dur Padial Skilimane Starboy Ndiaye gaynde bëggul bu mu yàppale yu play gars yi mi ngi ni il a repris les entraînements avec les Olympiens de l'Olympique de Marseille mais également Pape Alassane gay qui a repris papa Alassane gay nga xam nak nag mois de décembre bi dugg na ci alhamdoulillah ci la wala tàmbaliwaat mais également Ismaël Espiri de retour du côté de Marseille Ismaël Sarr il faut retrouver confiance am retrouver efficacité parce que actuellement gars on a besoin de lui et que Fimdeni mes formes nii méforme bi Sénégal quoi on a besoin de tous nos hommes forts L'Inac nag France Hein. France disqualifiée pour les quarts de finale de la coupe du monde est ce que dina mën a am du donc d'abord, abord dañ a koy waxaat wax naa leen ko ki ngeen Il ni booy bu xees bi dafa tournoi qualificatif coupe du monde Il bi nga xam moo Algérie Sénégal gagné ko faut dafa au ak Niger hein. donc quelques mois après

ñëw bokk ci li nga xam ne rek mooy donc compétition France bi léegi nag euh, boo ko waa Burkina Faso euh, daal di euh, porté li tax nag jàpp mooy que ne Burkina Faso daf ko daf ko yéex def ba mu ko yéexee def nag waa France xam ne war nañ jaay ak Sénégal ñu teel matuwaay ñoom dem ca bi nga xam mooy donc ca waa FIFA daal leen koy wax ne nu jamono daal dañoo bëgg a retiré booy bi ci yenn circonstances yi parce que xam nañ ne ñoom def nañ erreur.

ba du jouer yenn compétition ci benn diir mais FIFA li muy bañ aussi mooy que ne bu fekkee ne aujourd'hui dañoo porter réserve France calendrier bi day chamboulé wu situation bi day changé donc aujourd'hui même même bu fekkoon ne dañuy porter réserve France bu jàpp Ouzbékistan bi mu waroon dajeel mooy dem automatiquement en demi-finale donc aujourd'hui donc moo tax ñu ne FIFA ak waa France dañu am daa di am accord donc aujourd'hui ñaari option yi mooy soit li nga xam ne mooy donc Mohamed Issoufou ñu daal di koy moom daan teg daan France risque dara wala bok également lol munta mun à 90% ak nek vingt France directement donc lol da jàppale donc donc nañ japp ne recours même bu ko Sénégal défé fi ni dal FIFA dafa xaw a jàppal tank France tu vois et France aussi ils ont tel à anticiper hier et comme je dis donc c'est dommage pour les Lions du Sénégal on aurait aimé voir Amaro Diouf jouer match bi on aurait aimé suñu nous gagné ko ci de terrain mais comme je dis dañuy gën a ont par rapport expérience ak ñu compétition donc le grand Sénégal champion d'Afrique, déboule, demul nga euh, coupe du monde bi quart de finale c'est dommage hein, c'est dommage. mais comme je dis maintenant on année une défense ñu titre face à des équipes redoutables comme le Mali Nigeria, nga le Maroc et tout incha allahu rabi li mo nekone information ñu bëggoon jox kon jàpp leen ko li moo ruusee ci li nga xam ne nag mooy donc lii di réserve bi Sénégal porté pour ñu laaj donc wéy leen di laaj wéy leen di abonné joxe leen seen xalaat également on avance ensemble dans la magie des sports TV jaa